xasida gi di fawzul mutiyan ah. dañ ko masa leeral waaye booba dañoo leeraloon rek salaatu yi nga xam ne maanaam njariñu salaatu yi lañuy leeraloon fekk nag ci njëlbeen gi sëñ bi indi njariñu julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa indi ci njariñ yu baree baree baree bare yu mata mata jàpp sax fekk booba bañu na guddal rek moo taxoon nu indi woon njëriñu salaatu yi nu bëgg a indi nag léegi njëriñul julli ci yonent bi mu indi te mu mat a jàpp lool daa wax ne boo demee ci téereb xaatima charxul xaatima da nga fa fekk mu indi ci njëriñi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa lu toll ci ñeen fukki njëriñ ñeen fukk ne ba ci njëkk bokk na ci jëfe ndigalul yàlla sunu borom minha imtitaalu amrihi sunu borom moo ne yaa ayuha alladina amanu sallu alayhi wa taslima loolu moom ci joxe ndigal julli ci wante bi moo ko digal képp ku gëm yàlla kon jëfe ndigalul yàlla mooy benn njëriñ bi wa muwaafaqatuhu fi salaati mooy sunu borom daa wax ne inna allaha wa malaikatahu yusalluuna ala nabi léegi nag daa wax ne yàlla ak malaayika yi ñoom yàlla ak malaayika yi dañuy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam léegi nag yow jullit bi booy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dangay bokk ak yàlla di ko def maanaam dangay bokk ak yàlla mbir moo xam ne yéen a ngi koy def muy julli ci yonante bi waaye ñi xtalaf naa maanaam nag suñ borom mom len lu ne du ko nuro kenn dana wuté lol kon ndax suñ borom mom len lu ne ni ñu ko waxee léegi da koy wuté ak ñëpp waye dal mbir momati moy julli ci yonante bi bok ngeen rek diko def wa muwaafaqatuhu al malaika lolou moy li ñu waxoon léegi rek moy malaika yi ñomit da ngay bok ak ñom diko def moy julli ci yonante bi wa xusulu ashrin ashri salawaatin min allahi taala ala al musalli alayhi bokk na ci njariñal julli ci yonante bi mooy boo ko defee benn yoon rek yàlla julli ci yow fukki yoon loolu ab la boo xam yonante moo ko wax ne ku julli ci man benn yoon rek yàlla juli ci moom fukki yoon te fekk nag julli ga yàlla julli moom mooy gën màgg lool gën a kawe lool jullit nga julli yow wa yarfahu lahu achra darajat yaktub lahu achra darajat boo jullee ci sang ba rek sallallahu alayhi wa sallam ñu la fukki daraja bindal la it fukki daraja yiw wa ijabatu duaihi ida qaddamaha bokk na ci njariñal julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa boo ko jiitalee maanaam booy ñaan ñaan jiital julli ci yonte bi laata ngay ñaan la ngay ñaan suñu borom day nangu sa ñaan hmm. wa sababun li shafaatihi day taxit nga am ramu yonte bi manam bu ëllëgé nga bokku ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam di ramu lolu ñëw na ci ab wa li kifayatihi allahumma ma ahammahu njàqare adduna yeeg àllaaxira yépp yalla dala cey fegal tiis tiis yi yitte yi adduna yeeg njàqare yi ak yu àllaaxira yàlla boo saxoo julli ci yonent bi yàlla dala koy fegal wali qadaaya boo saxoo julli ci yonent bi sunu borom day faj say xaajo wali salaatillahi wal malaikati alayhi bokk na ci nag loolu lu mel noonu weesu woon mooy booy julli ci yonent bi yàlla ak malaayika yi dañuy julli ci yow fekk ñoom nag yàlla julli ga muy julli ci yow mooy gën a màgg lool gën a kawe lool wali najaatihi min ahwaalil axira day taxit nga mucc ca tiiti àllaaxira yi mbugali àllaaxira ya tiit ya day tax nga mucc ca wali raddihi alayhi salaama lil musalli wal musallimi alayhi yonent bi boo ko boo jullee ci moom ñaanal ko salaatu ak salaamu nuyu ko muy salaamu bi dala koy delloo sa yoo ko defee rek mu delloo la ko loolu day bokk ci njariñi kon wali nafyil faqr julli ci yonent bi day dàq ak ñàkk ak ñàkk hmm. wali wuquudi nuurihi ala siraat buñ taxawee di jéggi siraat bu ëllëgee sag leer day tàkk yow borom naan nuuruhum yasa bayna aydihim bi aymanihim yàlla mën na laa boole ci ñooñee moo tax mu ne seenug leer seeg seeg boo ko saxee saxalee moom julli ci bi taxaw ci siraat rek sag leer day tàkk lool nga am leer gu bare bare bari wali hidayatihi te da nga am jub gindiku wa hayaati qalbihi da day musal ci xol bu dee day tax sab xol dund wali tasbiti qadamihi alayhi maanaam bu ëllëgee it bu ñu taxawee mën ngaa jàll wali tasbiti qadamihi walla wal jawaasi alayhi maanaam boo taxawee ci shiraat buy bëgg a jàng ba daal ñuy jéggi rek day tax sab tànk dëgër nga xam ne doo jeng ba mooy ba daanu sawara day tax daal sam dëgg sam dëggu mën a dëgër ci kaw shiraat nga mën koo jéggi jàll jëm aljana walikkat billahi lahu bayna aynayhi baraatan min an naar boo ko saxoo suñu borom day bu ëllëgee dalay bindal ci say diggante yaari bët yii ne kii set na ci sawara wal barakati fi daatihi wa amalihi wa umurihi wa asbaabi masaalixihi julli ci wante bi sallallahu alayhi wasallam day tax suñu borom barkeel sa lépp sa jëmm sa say jëf sa liggéey ak sa dund lépp lépp lay def sa barke sa lépp dal sa mbolam entre yep da la cey defal barke wali nayli rahmatillahi lahu day taxit nga am yërmande yàlla wali tabshirihi bil janna day tax nu bégal la ci aljana wali qurbil habd min nabiyihi sallallahu alayhi wa sallam fil akhirah bu ëllëgi bis penc day taxit nga jege yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ndax wante moo ko waxoon ci xadis ba moo ne woon bu ëllëgee ñay gën a yay ci man gën maa jege mooy ña gënoon a bari lu ñuy julli ci man wa annaha taqumu maqaama sadaqati li dil xusura bokk na ci njëriñal julli ci mooy boo ko defee day taxaw taxawaayu ku néew doole ba ku ku néew doole ku néew doole bu góorgóorloo ba saraxe tiyaab ji day bari lool bu ko defee nag nee na tiyaaba ju toll noné mom yo julli ci yonent bi da koy taxawé man day taxawé taxawaay yeb dal saraxub ku new doole wa tu al abda ma nasiya day tax sam xel ubbe ko lol ba lo fàtte won rek nga fàttaliku ko doo gaaw a fàtteeti wa al majlis allazi fihi wa la yakun hasratan ala muttami'ihi fi l axira day tax jotaay bañuy tuddé yonte bi jotaay bañuy jullee ci yonante bi bokk day teey lool nekk jataay bu yàlla gërëm ta du doon ak pert bu ëllëgee yonante bi daa waxoon ci ab xadis ne aw nit bu ñu toogee ci ab jataay tudduñ fa yàlla benn yoon jataay boobu bis penc ak perte lay doon lool mais nag jataay bu ñu tuddee yonante bu ñu jullee yonante bi rek sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee du doon ak perte mukk في عن العبد اسم البخل إذا صلى على نبيه عند سماع ذكره صلى الله عليه وسلم نجيب داو خن كان اي دغ دغ موي كو خامني موم دنج ما تود فمو مونتو جيلو تي مان مانا نك لغي بو ساخو جيلو تي وانتي موم تورو كو ناي دنج لاكوي سوري ناخ لولو ديفوكو وتنجي من الدعاء عليه برغم الانف له بو ساخو جيلو تي وانتي بي كيب كو خام دالاي نيانال اي baa mu bëgg laa liggéey daal baa bëgg laa ñaana waaye sa kaw du la mën a dal dala yàlla jullit bi day muslu ci loolu ci ku lay ay woon woo xam ne daa bëgg mu dal sa kaw daal moom du man ci yow dara wa tarmihi ala tariqil janna nee na moom day mel ne dalay fab rek sànni la ci yoonu aljana nga tege ca وتنجي من شر المجلس الذي لا يذكر فيه اسم الله تعالى ورسوله ويخرج بها من الجفاء maanaam yonte bi daa am xadis boo xam ne da caa wax ne aw nit bu ñu toogee ci ab jataay ba jug te tuur yàlla jugu fa bu ñuy jug dañuy mel ne ku tiimoom tiimoon meddu mbaam di ko lekk te bu ëllëgee jataay ba ak perte gu rëy lay doon léegi nag moom lay wax ne nag ayu jataay boobee nga xam ne dañuy mel ne kuy lekk meddu mbaam mooy nit ñu toog ba jug te tudduñ yàlla benn yoon jataay bu ñuy tudd yonent bi nag bu ñuy jullee ci bi ba loolu ay ci am ay woowee yonent bi jataay bu ñu tudd yàlla da ci am jataay bu ñuy jullee ci yonent bi ay woow du fa am yàlla kon ña toog du leen mere mukk وأنها أداء لأقل القليل من حقه وشكر الله ونعمته التي أنعم عليها مع أنه عليه الصلاة والسلام يستحق ما لا يحصى نانا جولي تيانتبي دايما لبوكو دفعي حق ييغا خامني وار نانيو ci sun war nañu war na war na nun ci yonte bi matal def nañ ci lu neewa neewa neewa xéewal gi ñu ko yàlla xéewalee moom yonent bi day mel ne sant nañ ci yàlla jox nañ ci sant yàlla googee ci lu néew a néew a nag moo tax mu ne ànd ak nag yonent bi moom yeyoo na la yeyoo ci ay xaq ci nun mënee su koo takk bari waa na bari goo xam ne mënee su koo takk walakin subhaanahu wa radiya min na bil yasiri min shukri waaye daay xaq yi waaye borom nee na boo defee lu néew rek ci ak cantam baa nga joox dara dara lu mu tuut tuut ci xaq yoonte bi rek mu gërëm ko ci noonu bég ca ci noonu buñ ko defee rek mu nangul nu ko gërëm ko wa annaha sababun li ru'yatihi sallallahu alayhi wa sallam fi lmanaami ida qaala almusalli allahuma salli ala ruuhi sayidina muhammadin fi l arwaax wa ala jasadihi fi l wa ala qabrihi fi l qubuur na bokk na ci njariñ yi mooy day tax nga gis yonante bi moom julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ko ci ay nelaw te mooy boo waxee salaatu gi allahumma salli ala ruuhi sayidina muhammadin fil arwaax wa ala jasadihi fil ajisaat wa ala xabri fil xuboor loolu boo ko waxee nee na day tax yonante bi nga gis yonante bi ci ay nelaw da ngay teg allahumma balligh ruuxa muhammadin minni tahiyatan wa salaaman waaw loolu ci la bokk ويقول اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسدي في الأجساد وعلى قبري في القبور اللهم بلغ روح محمد مني تحية وسلامة لولا أنا بوكو خيرك كسخو دا نغا غيس يونتي بي وسبب لإلقاء الله تعالى الثناء والحسنة للمصلي عليه بين السماء والأرض لأن المصلي يطالب من الله أن يثني على رسوله ويشرفه والجزاء من جنس العمل kon fala budda yaxsula lil musalli nawxun min dalika nee na day tax julli ci yonante bi day sax suñu borom tagg la tagg wu rafet ci kaw asamaan ak suuf def dal day def day tagg ci kaw defit suuf nangul la di la tagg ndax nee na kuy kiy julli ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam day sàkku ci yàlla mu tagg tagg yonante bi ba dolli ko tedd nga ak su ko defee nag sunu borom loolu ngay sàkkul yonte bi loolu la lay fayee ndax dañuy waxal jazaa min jinsil amal xeetu jëf ja ngay jëf lay paye mais nag léegi booy julli ci yonte bi nga xam ne danga koy sàkkul kon yàlla tagg ko dolli ko tedd nga loolu nag la yonte bi faye defal la ko yewit kon ñeen fukki njëriñ yi yëpp indi na ko ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi muy njëriñ yu bare bare bari yoo ne mat na jàpp te kon jullit bi fu mu toll rek moom julit bi aw làmmiñam war nay tooyoo ci tudd yàlla ndax daa gën ci rëy rek li mu ko tàmbalee ci ndigalul yàlla li daal moom day njariñ loo xam ne amul fu mu yem kenn xamul tamit nu mu toll